ne ndaje tey bi dañuy gërëm adjoint au maire yi nekk ci Sénégal yëpp tey ñëpp wuyu si nañu jóge nañ fi gën a sori ci Sénégal pour ñëw fekk bés bi muy bés bu neex bés bu rafet malgré am na tuuti lu fi xewoon mais noonu la àdduna yenn saa yi day am ay ay sikki saaka mais yàlla def na romb nañu loolu ba waxtaan ci jàmm ak salaam tey ndaje mi dañu daje woon pour waxtaanaat pour yëngalaat li nga xam ne mooy mémorandum bi ñu jox njiitu réew mi jox ko ministre bi ci biir loolu mooy li nga xam ne ñun adjoint au maire yi suñuy payoor mooy statut global bi maanaam suñu payoor ak yeneen yi ñu mun ko jël en charge ba nga xam ne ñun adjoint au maire yi liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ñu mun ko def comme ni mu waree donc def ko ci jàmm ak salaam mais également def ko ci wetu population yi nga xam ne ñoom ñoo ñu fal ci biir mémorandum bi euh, xam ko payor bi wax naa ko sànq mais également euh, wérgu yaram bi des na amuñu prise en charge euh, session yi ñuy laaj maanaam euh, indemnité de session bu bu amee ñu am loo xam ne maanaam tubaab da koy wooye jeton de présence ñu mun ko ndàmpe ki nga xam ne moo conseiller yi jóge fu sori ñëw soit ñu passé ko wala ñu añe ko comme ça nga xam ne dinañu mën a di def seen liggéey pour chaque fois bu conseil amee ñu mën a atteindre quorum bi parce que mënoo dox fukki kilomètres am na dëkk yoo xam fukki kilomètres la ñuy dox pour ñëw def conseil delluwaat kon war nañu am lu ñu leen dàmpe mais également passeport yi nga xam ne ñu ngi koy wax parce que passeport de service yi am na coopération boo xam ne maire yi dañ koy am ak yeneen euh, ak yeneen réew ci ci nasaraan yi mais li koy nasaxal mooy euh, des fois dañ leen di invité dañuy invité adjoint au maire yi mais pour ñu dem ça pose problème parce que yombalul lu ñu leen lu ñuy amee kayit